jël ngeen jëf mbokki wasaare lamb wasaare TV ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen dalal ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci làmb su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci ñi nga xamante ni ñooy ànd ak doom mi tey nag ñu dalal fi ñaar benn combat boo xamante ni ay xale koy jëflante ci diggante ki nga xamante ni mooy biir de ak ki nga xamante ni mooy Petit Niang combat boobu nekk combat boo xamante ne combat la combat boobu nekk combat boo xamante ne combat déclenchement la ci ñoom ñaar ñëpp ndax dafa nekk combat boo xamante ne combat bu neex la ñu koy nuyu ki nga xam promoteur bi nga xamante ne moo taxawal ñi nga xamante ni mooy ak euh, Pape Birahim nuyu naa la. waaye fay naa sant yàlla rek. naka sant bu wér. Eh, da ngaa def mbaxana def. de moom laa indi làmb ji de. la kay. <laughs> Pape maa ngi nuyu. si ak yi tey yaa ngi am jàmm bu baax a baax. wala waa gox ba. añak ba ñi nga am jàmm bu baax a baax. ange bi laa yéen yàlla jërëjëf borom Tuubaa ginnaaw bu ñu sant yàlla jël jant bi sant suñu ñaari waajur waaw ñu ngi sant waa Bun bu baax baax nag di sant ñoom fekk émission bi di sant sama adversaire bu baax a baax. waaw Birame. Birama Birama. Birama ah? waaw. Ah, ok waaw. waaw mais parce que moom loolu la gis rek. nañ bàyyi ba bis ba rabbi mbër mii fa mi ngi am jàmm bu baax a baax. yéen a ngi waaw ñu pare moom bu baax a baax instant bi nii incha allah. mbër mi ngi si jàmm. Ah. waaw ñu ngi waaj bu baax sax. bu baax a baax instant bii boo gisee ngay tiit sax. baax na nañ bu baax. kon fu mu toll nii ngeen. yàgg na. waaw ah, lu ngeen gën a yokk rek ñu gën moo tax. ñoom lu gën a yokk rek dafa ñuy gën a anal. Ah. waaw incha allah rabbi ñu ngi ciy liggéey lu doy waar lamb mais làmb ji si am solo de boo oyofee dama lay yenu sànni fële. boo xam ne loolu la ñun oyof boobu moo ñu arrangé. non war a oyof non baaxul si yow. dañoo war a oyof pour jëli bi gaaw. Brise bay bëre moom foo nga diis. non non Brise mu ñëpp diis kenn ndaw si a diis gën kon ba dañoo ay ci ponkal. kon ba jour ba. ah la demee. ñu gis làmb mu nekk làmb yoo xamante ne làmb neex la ma gis ki nga xamante ni ma gis ki nga xamante ni mooy Petit Niang dañ ko tegal adversaire tegal ki nga xamante ne mooy Brise de Mer mais Brise de Mer dafa ngeen taamu bëri Petit Niang non Petit Niang yu bëri am na si ndam moo doon ñu jël ko ñun dañ bëgg boy bu dëgër mën xeex mën a bëree ñun loolu lañ bëgg bëgguñu ko yaafus moo doon ñëw jël ko pour duma ko daan ko dem wan na ko ñu duñ moroomam mais est-ce que loolu dina yomb non day yomb kay Brise Brise ñu bëri ak Petit Niang ñu bëri bokkul moo tax ñun dañ ko jël lii rek ah, pour loolu moom loolu moom dëgg la waaw gis nga loolu tax ñu may ko chance jël ko pour na ko ñun duñ moroomam mu redoubler delluwaat ñu ñuy passé dem kii dina ci xelam rek la wax aussi billaay wallaay wa taalaay làmb ji maanaam akay dina yom mën na yomb mën na bañ a yomb mais ñi ngi liggéey lépp lépp loo xamante si nii rek war nañ koo demee ñu ngi koy liggéey parce que ku jëm guerre doo fàtte sa arme waroo fàtte benn am lépp ñu ngi koy travail xeex saa yi liggéey bu baax a baax loo xam si ni mën a daan parce que laamu ji xam nañ fi ñu mën a yóbbu te man leer na ma ñu ñëw ko gën a bëgg laamu ji moom. est-ce que xam nga chance bu ngeen am parce que dama daan gis xale yi buñ daan bëre ñoo bëgg wax bëgg a bëre diw. Mm-hmm. mais diw boobu ngeen bëgg a bëre bëgg a taamu yéen ndax bu ngeen xoolee adversaire yi mu jot a bëre bëre gu waaw ndax su ma nee ku ne Boy Niang naa Boy Niang rek loolu doy na palmarès mu taamu bëre ak yéen est-ce que nga xam ngeen ampleur combat bi. waaw xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax waaw parce que soo gisee comme première combat mu bëri yëpp nga xam ne yoon la mu bëri bi la parce que nekkul loo xamante ni maanaam dañ ko wutal yoon wala dara dafa liggéey ba si foofu noonu ay combat rek la bëri bëriwul benn combat bu yomb am na ñu bëree bëri dañ koy jox dañ leen di jox avance première ñu delloo parce que xam nañ ne combat boobu du yomb caaxaanul liggéey rek la xam entraînement tëdd amul caaxaan ci làmb waaw. te Brise lamb ji lamb ji ñor la barki alxuraanu karim am na luñ ciy liggéey doy waar incha allah rabi te bis baa di nga ko xam. bis baa di nga xam ne luñ ciy liggéey doy waar. waroon bëreeg moom sax. lu tax loolu waroon bëreeg Priña. Brise booy Thiès bi lañ ko njëkk a jox booy Thiès bu ruux delloo avance bi. mooy kan ambulance. ambulance bu Thiès lañ ko njëkk tegal te ambulance bu Thiès du mu romb booy boobu moo ko sut mu ko moo gën a doon saay-saay booy bi delloo ko booy bi nag moo am fit ba jël combat bi jour combat bi nag dëggal boppam xam Brise du arrière moom anawaar rek bu dëgg bu mu combat bi du yàgg. mais li may bañ mooy nga ñëw di wër-wër loo. duñ ci wax xam la moo duñ ci wax. waaw amuñu amuñu tëggaluñu combat ñun ak moom ñun ak Brise lañ tëgg nañ bàyyi ba génn ci làmb ji parce que làmb ji dafa am lu ñu liggéey te bu jour ba ngay comprendre xam ne làmb ji am na lu ñu doon liggéey. bu jour ba doo puus doo paas loo indi fekk ko fi. ñun waa Grand Médine. am na loo mënti indi laalox ñun. waa Zem ñun loo <laughs> indi laalox fii. ñun ku ñu xamul dégg nga ñu. wér laa ko ñaanal wér. moom laa lay ñaanal ndax yow boo wérul combat bi doon na nga wér am lépp indi lépp indi say mbokk. jour <laughs> ba boo ma gisee da nga naan noo du man. barki Muhammadu Rasulullah maa ko barki yaa Rasulullah wala jour ba di nga sat boo ma gisee da nga ni non kii du Bruce Ousseyn loolu lañ bëgg ci làmb ñun làmb jooju loolu lañ ci bëgg incha allahu rabbi jël bu gaaw lay doon du yàgg sax. est ce que mën ngeen a daan Brise de Mer jël bu gaaw. keneen ak Brise de Mer fi mu jógee ci làmb ak fi mu mën naa ne dafa tardé est ce que mën ngeen a bëri moom daan ko jël bu gaaw jël bu yomb. keneen ku dul Brise de Mer pour ñam mën na ko daan. ñun ñooy diriger ñun ñooy ñun bu ñu neexee ñooy yéex mu neex mu gaaw. ku xam Brise bu taxawee. Prignan du ko jëli. xalaatul dugg ci tànk yi. ku xam Prignan xalaatu ko man maa la wax loolu nii Prignan fekk Brise taxaw ma dem jëli ko ak brise bu takku ba taxaw xool mu toll nii sut ko ëpp ko njool ko. gën ko doon coriace gën ko doon saay-saay. dafa bandi rek. muy bandi bu mag Amadou Bandi troisième Malasum <laughs> waay troisième yóbboo stade bu bees bi yëngal foofu yëpp waaye Malasum waay leneen ngay gis. Ousseyn ki li wax gëm ko. wax gëm ko mais pour ñaar bu fekkee ci brise mer gëmul mu dajal jëlee na ngay kombam. waaw seetaan ngay xam nga. ñooñu du ñii courant du mu doon batterie. jeex na <laughs> ay cëy li ngay fekk jëli ko mais du brise Thiéli mën nga fekk mu taw nga jëli ko Thiéli seetaan naa ah, ko seetaan naa ko mais Thiéli Brice bokkuñu ndax kii sañ fekk Brice taxaw nga jëli ko comme seetaan nga ko boobu ñun ñoo lay fekk fi nga taxaw duma la daan la en tout cas yoon jox la say mbokk nga ñibbi yoon bi na metti yoon bi na sore si de dañ ko indi entraînement bu doy condition bu mën a bëre cinquante minutes bi cinquante si moom bëri bi bi cinquante minutes lu tax muy bëri moom cinquante minutes te morom da ko bu at bi firi soufflé dama naan ko brise mën naa mën ko dama jëli ko mu yab la dimbale ma ngir yàlla naan ko brise dama jëli waa ji kii yaa ko mën ko daan ko brise bu dawee jël mu dëpp brise ñeme na taxaw di bëri booy bi ay vingt mille booy bi la am zéro bu ne vingt mille kon du ma gis sumukaay bi <laughs> mais bu dee bëri wax la benn affaire bu dee bëri day wàcc xale yi de est-ce que xam nga loolu mu nekk xale xale ñu gënuñu nekk xale ñun dañ teel a bëri rek Brice booy la maanaam xamante ni mën nañ koo bàyyi xel ndax mën na bëri am na saay-saayu làmb te day xeex li nga wax la Brice a ko daax xeex Brice ko ëpp caay-caay Brice ko ko doon bandi ñett yooyu yëpp Brice ko ëpp Brice ko gën a doon caay-caay Brice ko ko doon ko dàq jóg gën ko dàq yëngal bi gën ko doon bandi yàlla nañu yàlla may tal fekkee respecté nañ ko trop nag est-ce a wane seen bopp. loolu xam naa ko bu baax booy bi moo ñu relancé wax ndax dama koy duma daan ko. ñun le retour de brise de mer bi yomb. kii xelam mi lay fooyee. Ousseyn am na lu bare ki ñii barki alxuraan ñu leen gën a fokk laamu ji. billahi su ma demee waalo ñun ñoo leen gën a bokk. brise moom Touba man moom nee waalo brise dem Touba Kaffrine Kaolack gi yëngal foofu yëpp ba pare. demal Guinée Bissau waaye bu takku demalu Guinée Bissau foofu lañ jëm kese. Guinée Bissau demalu Guinée fii la ñuy toog duma la daan la. demal Guinée Bissau may Guinée dañu wut Guinée Bissau Guinée Bissau yow teel nga koy def lu nga xam ni kenn mosu ko ko def entraînement lañ leen daane dama koy munum loo xam nga munum ba pare duma ko entraînement lañ leen daane ba ba ba ko ëpp bu ñu sumee ko munoo ma ëpp munoo ko brise gën a sonn ci combat bi ci entraînement yàlla na ko yàlla may ndam amiin si barki Muhammad Rasulullah ku gën a sonn sonn ci combat bi ku gën a sonn si entraînement bi ku gën a gën a ci taxaw yàlla na ko yàlla may ndam ëpp du doole nekkul si yëpp laa la wax Petit Niang mën na Brice doole. fuuf ah la ko ëpp doole. ëpp ko doole benn yoon ñaar ñaar yoon la ko ëpp kon gis Brice moo tax. musoo toog moom gis ko nii waaw bàyyi musoo gis Brice. da nga musul gis Brice Petit Niang gàttaayam boo mun daan Brice. guy la guy. ku da gàttaay doy guy la këriñ la Brice. kon boog. Petit Niang daama la kay mais nañ tamit parce que boo xoolee. boo ñaar taxaw nañ gis nga leen. Brice ko sut Brice ko long Brise ko large. mais est-ce ko dàq bëri. loolu yëpp suñu arrangement la loolu yëpp suñu arrangement naa na gën na toll li loolu moo ñuy gën a neex ñun. ba di nga jooy yàq toujours ba di nga jooy dañ koy bëreloo ba muy wàcc yow suñu ànd ak moom sax da ngay ngay soog a mu ngi soog a daanu. bëreloo mu wàcc. waaw oh, Brise du mu gën a neex ñu bëreloo ba mu wàcc mu ngay soog a. Brise yow sànni ngay combat. gis nga ni lay demee ci jàmmaarloo Adama Kaagu na leen dem xooli entraînement mbëri te seetaan ni entraînement ñaari ba dellu si waat Birame noo gisee Petit bi. waaw mi ngi liggéey de na góorgóorlu rek laa koy wax de lu mu liggéey na ko xeeb nag ndax gargar lañ koy indil xam nga naa la wax gargar. lan mooy ma ko ba pare laa la gargar. booy xool ma eh. yow rek laay gargar yow rek na ba jour. ba du yaa nga fa n'est-ce jeex na. noo gisee état bi foofu brise de mer. waaw nice état bi moom lu ma ciy wax. na liggéey rek laa koy wax. lii doy na la wala na yokku. na na gën a yokku. yaa ngi dugal sa waay de man brise na gën a diis loolu moo arrangé quoi. bu diisee bu jëlee da koy tegaat. non bëri na xamal laa ma ñu mosul am bëri bëri la booy wax bëri ko bëriloo ba mu wàcc mënul nekk. dama ko dàq bëri gën a doon champion fop la dajal. ay Jules Baldé Junior ñoo a wow. dama yàgg yow combat bu yàggee nga bàyyi. du ma ko bëri parce que. damay dox ah ci kaw adversaire. mi ngi wax mi ngi wax di moom nee na cinquante minutes lay entraîné pour bëri le combat. dama ne dama ne ko combat suñu combat ñoo nag Brise de Mer laa wax lépp li loo xamante ne dinañ ko liggéey dinañ bëri andi condition bu doy bu mën a bëri cinquante minutes laa ko wax dinañ andi doole dinañ andi entraînement boobu bu ñu simee ko ci stade bi amateur yëpp kontaan. yow Brise parce que lamb ji daf ñoo ñor cinquante ko. su combat bi yàggul ñoom ñoom ñu la gën a doole gën la nekkul da ngeen pare woon bu bëggee combat bi yàgg. waaye bu bëggee ñu bu boobu ñu am fu ñu tasee ñu defaral ko bagage su ma paree ma jël la defaral la. gis nga gis nga combat bi leen fay pour ngeen bëree du ngeen tafe fenn arène nationale ngeen di tase jëflante yéen ñaar li ngeen war a jëflante. te foofu naa la xamal dara de suuf si fii la yem. da ngay dugal sa tànk bokkul ak fee dafa tooy de fii léegi suuf si da ngay dugal sa tànk yëm fii liggéeyal tànk yi bu mu ngoow loolu moo ñu arrangé incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla may tara fekkee baa doo ko jël si géew bi di jooy loolu wala nga atte baa doo daw atte dama ne loolu moo ñu arrangé incha allah dama lay laaj baa doo daw atte yow lay laaj baaroo dawaate yow man barke Muhammadu Rasulullah du maata waaw kon baax na billaay wallaay wa taala kon baax na yàlla nañ yàlla may yow da nga ñëw si géew bi jël sa mbër di jooy ñun ñun laa wax de bu combat bi doon suba pare nañ bu nekkoon suba sax pare loolu ay waxu combat bi bu nekkoon suba ay waxu si pare nañ bu ñaay sama saison musul tëj bu ñëwoon bëri suba du bëri wala xam nga la saison musul tëj maanaam teggiwul tànkam ci entraînement entraînement teggiwul tànkam mbër mu ndaw wax amul ñun xamuñu loolu waaye da ngay xamuñu loolu yow da ngay da ngay rafetal rek da ngay rek. petit ñaam samedi ak dimanche lay eh, a ni mu newee nii mbaaru moom nga yaakaar ne mooy loolu ay newi bu di booy bu ndaw entraîneur bëb bi sa si ni avant bras yi fees dell nga dafa newi incha allah yàlla na yàlla looloy newi dafa naan dool Brice na bañ a naan këriñ la kii sooy jël tànk muy muy xool mat laa bi fu mu nekk këriñ yow xanaa xorom nga ku la sotti ndox nga seey hmm? man nag may booyal di may ba may xonk jur xam yow da ngay wax sax xamoo guy la kii lu ñu xamoo ko këriñ Brise guy waaw yow ko cas mu ko xam laa niim nga yow yàlla may tara yonent incha allah yàlla may ndam man wér laa koy ñaanal bëgguma ñu dem ba ci ba non loolu moom ko ñaan yàlla na ko yàlla may wér ko tal ko ñëw stade bi nekk si géew bi du la nga def ko ba bi ne far ñu fekk la fa def la garawaay dem suñu yoon ok doo bëre doo xeex doo puus doo paas amul benn problème waaw Ouzin bu lamb ji jeexee nga ñu invité waat ñu fii maa incha allah doo ñëw. du ñëw fu mu ñëw du ma ko daan ko. yóbbu ko ardo doo mu daan damay ragal ma ñëw sa kër jësi ku man damay ragal ma ñëw woon sa kër jësi la. boo ma jësee ma jël kap ndax dama lay déglu ma bu ma ko dumaa daan ko su ñëwee sama kër xam nga du ñëwee ñëw moom kese day hmm. ruus ma jëlal la kap teral la indi la fii. wutu ñu ci xaalis làmb ji ñun dañoo ñor. wutoo ci xaalis lam non non lam wutuguñ ci xaalis voilà yaa ngi doog wax xam nga nag kon nag da ngay xaru wutoo ci xaalis moo tax nga jël ko nag xam nga ne da ngay wàcc waaw ok ñun nag dañ dañu dañ ciy am xaalis daan la ci dem. yàlla nañu yàlla may kase gën a yokku. yàlla yàlla may tal koy wutoo xaalis toogal. ba bis ba incha allah rabi jël biris moo la neexoon. ko nee ko mu liggéey ñun nag dañuy fay xaalis. non mais est ce que daan Brise de Mer. kan mooy daan eh, Brise de Mer eh daan Brise la wax de. daan keneen la ñu amal Brise bu ñëwee dañ koy daan du information parce que xale la day liggéey bëtam nekkul ci Brise de kase am na yeneen champion yu nekk ci kanam yoo xam ne ñoom la war a bëri. ñi ma déggee ñu waxee dafa nekku ñu maanaam teg suñu bët ci moom de. Eh, da ngay li ngay wax lépp maîtriser woo ko bu tëddee bu nelaw. day wax ni melele jël combat ko woo laaj na fi mel ni ci àll bi lañ na dem fu ko neex na dem wutal galaaj bu wow comme loo wut moo ñu jàpp ñoo ñu pëjaa. ku ne la ñu dajal entraînement mooy galaajam kon na fori entraînement rek gàllaaj dóor entraînement jour baa bul takk dara loolu da nga koy wax yaa ko xam ne moom du ko wax entraînement rek wuy ma jour baa kon bul takk dara brise nekkoon na dem fu ko neex lan brise na dem nga ni doo takk dara non non entraînement oh, waaye day weddi wax di weddi boppam lamb musique da cee bokk de brise mer euh. jarul ñu musique yow boo demee Petit Niang na la meree li nga wax nii de <laughs> yow du caaxaan de yow Petit Niang bay mbokk warul musique nga woon musique brise mer jarul ñu musique man maa taxaw fii wax ko déggoo li mu la xanaa. yow bu ñu ko daanee yow nañ la dàq sa saaf bi de. <laughs> yow da ngaa sax yow comédien nga quoi yow barki Serigne Touba comédien wu lan yow lamb ji galaaj ak lépp ànd. da ngay moo ñu ko jarul lépp la. Brise jaraluñu ko. non ko moo tax. Hmm. Brise ma xamuñu ko. moo tax. Ah, yow yaa wax galaaj jaraluñu ko mais boo dee petit ñaar la wax bu waxati loolu. xamuñu ko man dama galaaj. xam nga laa koy wax na liggéey. day liggéey mais da ko siy boole. na liggéey bu baax ndax lamb laalo lamb laalo. bu ko teg si galaj galaj ak galaj. bu ko tegee doole mu dem bàyyi lamb. bu ko tegee si galaj dina nelaw na ko na liggéey bu baax mais combat bi dama. brise liggéeyal. combat bi dama. waaw combat bi ba toog mu ni ñaari wëlis. kan mooy ñaari wëlis Potignan. yow yaa gis ñaari wëlis. ak saako yi gisoo ko ak butéelu bëri. yow nga xool ndagam doo gis galaj. tàppal nga xool di ñaaw fees dell ak butéel takk ci kenn xamul ak lu ne mu takk ko naan man ah, dafa góorgóorlu mi ngi noonu pare mu ni gëmul galaaj loolu du galaaj ay muslaay la kon loolu du galaaj ay muslaay la muslaay du galaaj. parce que mbooloo boo ci nekkee foog nga tàgg ay muslaay. yow xamoo muslaay lan la. muslaay du galaaj. kan muslaay la du galaaj. xam nañ ñu suivre. loolu ñu maan ay muslaay muslaay lan la. waaw. déggoo li ma la de suñ takkoon ngeemu ñoom ñaar contact sans lamb ji dix combat brise du am du yow da ngay théâtre yow loolu yow yaa koy wax xam nga maanaam nekku Petit Niang nekkul ko xamee si ni maanaam damay. Petit Niang di inventaire ci moom loo xamee si ni xaw ma ko. dama ko Brise yëpp yëpp doole Petit Niang di ko dalam di moom dañoo nekk. yow mag kii yow dëkk ñoo dend nekk nga xam dañoo nekk. li nga xamante ni dañoo dafa dafa ko war a bëri bëriwu ko ci arène bi incha allah. mais est ce ko mën a wane ci bëgg nañ ko wane waaw parce que Petit Niang ñi mu bëri ñëpp. Ah, bëgg nga ko. ñun bëri ñëpp dañ koy wane ñun bëgg di bëreegul ak bëreegul ak daanaan bëreegul ak kundul daanaan ñun bëri ñëpp ay daanaan lañ booy bi de booy bi dafa nekk taalibe wow kongu saay-saay boo daje moom da ngay bëri da ngay xeex ñu mu dajee ñëpp ko la gën a ma Brise de Mer da ma nekk suñu drame instant moom la liggéey ba ci ba ba bi jàll kon de booy boo nga entraîné loo indi lépp loo mën dem sa dëkk Touba ngay wax te Touba sax maa la fa pële <laughs> waaw. jëlal lépp gis combat bi uh-huh. promoteur bu bees mm-hmm. uh-huh. jël ci kasam bi day tege. barki Mouhamadou Rasulullah man lay jox affaire yi ngay séddale. dindi si kasam bind ko ma may booy mafia bi yëpp ñu dem te booy ñu ngi koy waajal de booy grand mi de. booy saay-saay bi paa laay yóbbu. te dégg naa dégg naa Grand Médine bi euh, Grand Yoff bi léegi lépp benn la. ñëpp ñooy borom Grand Yoff daaru yaakaar Léona Senzala booy mooy booy mobile ñëpp mala sum waay PA bi ñun ñëpp ñu la ñu àndal. na ñëpp ñëw incha allah ñëpp. dañuy stade Pikine dañ koy toj ñaar. na ñëpp ñëw borom point ba yëngal fa. na ñëpp ñëw incha allah yëngal fa ba mu yëngu booy ñëw nag booy seen ñuy ñëw booy boo nga tax sa oto taxaw ba pare ba ñu jàll nga doog a jàll. ku xam waa buun xam ne esat ñëw ko moom buun yëmbal Kër Masar ñoo moom esat mais Iba la Iba Mar ak arène nationale laa laa wax yëmbal Kër Masar ñoo ko moom. Kër Masar yow Biris sa mu ne fans Biris bu jaaree Kër Masar fu mu romb ñu woo ko. na jël taxaw loo ko na jël lépp naan ay Kër Masar. na jël lépp. Biris yëmbal sa fa demoon sa mala sum waay sa bëri ñaar sa di ko dégg. xam nga kañ lay comprendre. combat bi ci guddi allah naa la woo téléphone. boo ma woowee itam man la décourage loolu laa lay wax. décourage loo bëgg wax la. bu ngeen amoon kàddu mujj lu ngeen di tàggatoo. sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari sama mafia bi waa Grand Médine sama gars yi waa Manise ba sama booy tapisé ñoom Baye Jili gars yor balaak maxi yi ñoom Samba Ndiaye ñoom Baye Jili ñoom Nandi Fall ñoom Serigne Gueye ñoom mag yi kuwaat yi lépp ci biir dañuy yëngal stade bu mu yëngu. baal la xanaa. tàngal ko moom tàng jër daan ko jële bu rëy ñibbi di waa waalo sama dëkk man falaa dëkk waalo Brise waa Kaffrine waa Touba ñun daal woonoon ñëpp ñu jàppale si combat ñu daan ko jële bu rëy dóor ko sañu bëri bëgg ñu ni ko tip mu toog ñibbi waaw mu jeex looy bu baax a baax di leen ñu jàpp ci làmb ji parce que combat bu ñor la waaw waa bun waa yëmbal Kër Massar waaw waa Grand Yoff waa Sicap non Grand Yoff sama Grand Yoff la bàyyi Grand waa waa Touba maa ko moom xool da nga may may ma ma gërëm non Grand Yoff bu ko tudd même ma wote Grand Yoff Grand Yoff damay jógee di ñëw ci combat pour ñaar di ko supporter si ñëwul lu bëri waa Grand Yoff duñu ay non waa ah. Grand Yoff duñu def yooyu waaw doo ma dimbale nan tey nan tey man laa la wax man waxuma la ngaakay ñooñu ngaakay la nan a baax nan tey ñooy ñëw di woo Baye Fall yëpp nag waa Buun surtout waa Buun waaw ngeen jàpp ci làmb ji bu baax a baax waaw di woo waa Touba waa Maaya di leen woo waaw di woo waa Gosaas waa ñene maa ngi woo ñëpp daal képp koo xam ne mi ngi jàppale Petit Niang ma ngi lay woo incha allah nga jàpp ci làmb ji bu baax baax. gis ngeen waa Grand Yoff maa ngi leen woo bu baax baax Grand Yoff. yaa ngi wax affaire mystique di wax waa ñee nag waa ñooñu de wala ñee nag dañuy jël oto ñëw rek <laughs> ah. waa Touba maa ngi leen woo bu baax a baax. nañu jàpp ci làmb Touba bi di sa ko moom waaw. waa Grand Yoff ni ngeen daan def rek da leen ko def ñëw ci làmb ji waa Grand Yoff. waa Grand Yoff ñëwuñu. waa Grand Yoff Grand Yoff la ñuy jógee jéggi tëli ñëw zéem. sama bi yaa dafay jógee di ñëw si war si pour ñaar si esat ñëw ñëwul biri boobu ñeneen ngay dajal mais bu nekkee brise ñooñu ñàkk nga leen. Ah, sama nante yi laa wax man. sama nante yi dëkk Grand Yoff ñu ngi lay jaay ñoom xamoo leen ko lan. <laughs> maa ngi nuyu ñëpp maa ngi woo ñëpp. <laughs> ñooñu ngaaka yi la bu la nee nga jël ngaaka Grand Yoff bi man nante yi laa woo waa grand ñu ngi leen di yi gaa yor Balak Max yi. waa grand yow 2012 yi. ñu may wax xam nañ seen bopp bu baax a baax waa grand yow. ne ngeen bi ñoo koy yor leen bu leen teg seen tànk. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo day tàng ba nga xamante duñ bëgg sax mu jeex waaye nag mënul ñàkk faw moom ma di leen sant bu baax a baax di leen wax na nag làmb ju neex lay nekk di ci nuyu ki xam xamante mooy mooy promoteur bi ndax. Euh, mën naa ne gan la ci làmb mën naa ne xale la ci làmb waaye ñu koy tatagal di ko wax ne yegg seeg jàmm ak salaam tëgg combat yi saison bi saison bi sax man naa ne léemu tijji te xam naa ne ci tijji la jëm incha allah ñu waaj combat yi ak jàmmaarloo maa ngi leen sant a baax maa ngi sant bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon ëllëg incha allah looy wax. waaw di ñaanal site bi wasaare lamb yàlla na ko yàlla ful mu nekk site bu gën a mag Sénégal. ci barki Mamadou Rasulullah ay gars yu baax ngeen. affaire bi nice na loolu sama gaay ñoo far. waaw ba bis ba rek incha allah. incha allah fii rek lay amee jàmm naa loolu jaajëf.